ànd ak sëñ Cheikh mi di doomi sëriñ bi ñëw fii jotti la kàddu sëñ Fall Modou Mbend moom Cheikh Fall akub cantam ndax bi bii bi nga koy taxawal bala ngaa def dara baa nga yëgal ko kenn kenn da ngaa ñëw ba ci sëriñ bi waxtaan teeg moom daaw ak ren ji yëpp bala ko kenn di yëg wala kenn kenn di ci xam dara da nga ñëw ci sëriñ bi nga laaj ko ndigal doo ko yëkkati kon sëriñ bi xam na loolu Fall ndax bis bi day moom rek nga koy defal bisu Cheikh Ibrahima Fall la ba ko sa waajur di def di ko def ca Tiwaawan jóge ko andi ko fii ci Touba yaakaar nan ni yokku nga ko nag wàññiwoo ca dara lépp lu ko sa baay doon defee rek def nga fukkam loolu ñuy ko fekke fekke bii xam nañ ca dara kon nak fa sa baay jaaroon tànkam boobee jàmbaar la woon lol waye fal yaa ngi ca tànk ci serigne bi nak jaar nga ca tànkam bi ya nag sëñ Fall ne ñu lay ci bi la gërëm nu nag danoo bokk lépp no bokku ndey bokku baye ndax sa wajur ak sa wajurum ño bokkon ben ben lal ca mbar man ni moom mii sëñ Fallou Mbar keroog mu nga gane àdduna ñu di ko tudd sëñ Bass Fall alxuraan sa waajur wa ak sëñ Modou Aminta Fall ñu ànd tudd si ko moom mii loolu sëñ Bass Fall wax na ko waxati ko yoon yoon moom ak waajuram ba ñoo bokkoon benn néeg nekkoon càmbar yow mii nu bokk nag njàkkar ma jéey nag bokk lu ne kon nag bis bi suñ bisu bopp la ci lañ bokk ndax suñ bisu faal ci boppam moo ko nu ko a ah fàllu maak sa baaye woon kon saa bis ba ci teewoon dee ca ñëw loolee nag moom lay topp ba tey jii ginnaaw bu yónneen suñ bi jàllee ba noppi nag man saa jëm bopp fàllu mbar suñ bisu faal ci boppam da daan ñëw di ma yëgal bis bii mende ndey pesawat morom te sama waajur sama baay ya? lolo man tam maa ngi koy topp ji bu lolo jalle nak mag yow mi danoo bok nday bok bay kon nga ñaan ci doole Cheikh Rafal sen mam loolu sen Mbàkke fal sa mam ja ak sen mi ko tudde yalla sa fan guddul lol fal bis bi yalla ko dana yag ñoo ngi koy ñaan ci doolay Sëriñ Fall sëñ bi Fall tam loolu la lay ñaanal ko amul yar nga ko amul yëngu ci nit ñi nag kon nag ñu ngi ñaan ci doolay Sëriñ Fall seen maam bis bii nga yàgg ko taxat yu bari te dina yàgg nag dina yàgg lool Fall ñoo la koy ñaanal yàlla ci daraje Cheikh Rahma Fall jërëjëf Fall jërëjëf sëñ bi daa ni sëñ bi dañuy moom day nee na dañu la canta ngërëm rek di ko delloo sëriñ bi ndax sëriñ bi xam moo la fa yebal yow ñoo war a dem fekk ko fa mu toog ndax li ñuy def ki mu yónni si woon rek andi ndawal ga nee naa ko li nii ñoo ko war a yóbbu ko yóbbu ko sëriñ ndax li ñuy def kat moom lañ ko defal bis bi moo ko moom bu noonu bis bi na fi am tey jii. ñaara ñett dootuñu ko dégg ci kon loolu alalama leen fii def sëriñ bi na ne moom rek faal moo ko moom dafa ko kenn faal sëñ bi ba mu yëkkati ca maam Cheikh Ibrahima Fall loom rek laa wax danaa wax naan ndekk ma ciy togg di ko jot waa kër Xaadimu Rasuul loolu mooy màggal gi dama ci liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall liggéey ma liggéey Cheikh Ibrahima Fall ji leen ko yët kenn kenn doyu ci maa ko taxul sama bopp kon loola bu ko waxee Seyni Fall moo demee na fi tey jii moom Fall moom moom bis bi nag mooy borom bis bi nag mënoon nañu ko bàyyi yoonu kenn kenn dur ci ne ndax alalam rek la ñuy sàmm kon ñu ngi koy sant Fall at mu jot it teraanga yi muy yónnee wax yoon tarka defar na bis bi xam nañu fii moom lañ fi nekkal moom rek lañ fi nekkal ñoo ngi koy sant bu baax Fall di ko ñaanal yàlla ci doolay Cheikh Fall ñu liggéey bi mu liggéey liggéey bii mu di ko liggéeyal maam Cheikh Rahima Fall yàlla na yàgg ak moom Fall te ànd koog moom sëñ Fallou Mbar yow sëriñ Gunda ne yow da ngay xaritam de ne li nga wax léegi nii yéen a bokk ndey bokk baay li wér na loolu doy wax. nee dañ ko def suñu diggante yéen ñaar waaye sa waajuram ak sa misfaal alxuraan kene baa ko jëkkee teg bët booba ko sëñ Faal ga ca Paaleen ma jóge ñëw fa nag di nekk néegum ñax boobu ñoom ñaar moom sëñ alxuraan kii tëdd jëm nii kii boppam jëm nii kii boo jaaree ci permis sab takk ne day dugg ci biir néeg bi maa jaa sëñ bi ne ah ko mën a kere laa jëkk sëñ Mbàkke Fall moom Mudu Fall Mbenda ñoom na bokk ba sëñ bi la ma neele mom neul sa bay lolou yag na lool kon lolou mo lay xamal ni musna na tàggoo benn benn kon daal sëñ bi no ngi sant bu baax fal sunu kilifa nga de ci lepp nak waaye jaxason ci lu bari lu nek man na la ko wax nu ne nga mako wax. may nga ma sa bopp may naa sa bopp na njëkk njalu yàgg yàgg a jaxasoo fa loolu yàlla def na ko ñu ngi sansa rek yi sëñ Cheikh Fall ak sëñ Cheikh Baye Fall yi ñu àndal suñ ko seet na ci ñoom jotaay bi bu ñu agsee ci bis bi nday mel ni lépp jag na waaye bu ne gisagul day mel am na lu bare bare lu manqué nag kon na jërëjëf Fall tarkalla jërëjëf nan taal loxo yi sëñ bi ñaan bu noppee nu may délégation bi monsieur le maire bi bayiko ko maxi mag fi sëriñ Sidi Dieng moom Cheikh Nar Dieng nee dafee yag lool bari lu war doxi nu ñaan rek nee nu ñaan rek Fall nee ñoko bok bokk yéen yéen ko bokk nee na xolam sedd bu baax ndeysaan yalla jëf jenn yalla yalla guddal fan wi yene bok bok bok parce que yene